bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati l ilmi waxassin axlaaqana bil xilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika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 def jotaay bi muy seen jotaayu daara ñoo ngi ciy bëgg lool te di ci ànd ak yéen ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm waaye defal ñu suñuy yëngu ak suñu dal yëpp yal na jëmmam tax mu sellalal ñu suñu yéene waaye xiirtal ñu ci ñuy sonn ci lu ñu amal njariñ ba noppi mu nangul ñu ko yàlla mën na ko yal nañ ko boole defal defal ñu wér te yokk sutura suñu bindu almisbaax démb maa ngi taxawoon ci lenn ci sunna ak ngëneel yi nga xam ne moo aju ci julli ñëwoon ba aksi ci sàbbaal yi nga xam ne moom ngay sàbbaal boo sujjootee gannaaw bi ma noppee ci sàbbaal yi nga xam ne moom ngay sàbbaal boo rukkooee sàbbaal yooyu mooy bi nga tegee sëb ji ci suuf waxoon naa la melokaanu ku sujjoot ni mu koy defee waxoon naa la it ki rukkoo ni muy rukkooyee ci ruqoo mooy jàpp ci ay woomam wax subhaana rabbiyal azim buy siggi mu wax sami allahu liman xamida bu fekkee day julli moom dong wala muy jiite mbooloo su fekkee dañ lay jiite nag nga xam ne julli woo yow dong te jiite woo danga naan rabbana wala kal hamd waxoon naa ne boo ca doolee hamdan kathiran tayiban mubarakan fiihi yonent bi alayhi salaatu wasalaam andi woon na ci eh, xéewal yu rëy a yoo xam ne borom bi subhaanahu wa waajalal no ki nga xamante ne wax na ko ki nga xam ne dafa sujjoot sujjoot mooy teg sëb ji ci suuf dafa bokk ca ngëneel ya at tasbih wa duaa fi sujudi maanaam sabbal borom bi subhanahu wa taala ak ñaan ci ab sujjoot moo tax xadis ba ma waxoon ca rukoo ne la uqbatum na amir nee na ba suñ borom wàccee fa sabbih bismi rabbikal azim yonent yàlla muhammad alayhi salaam dane def leen ko ci seeni sujjoot fii itam nee bi suñ borom wàccee sabbi isma rabbikal aala yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane ijaaluha fi sujoodikum def leen ko ci seen ay sujjoot ci ab sujjoot day am ñaan maa ngi la ko doon junju ndax dañuy wax ne barab bi nga xam ne ci la jaam bi gën a jegee boroomam mooy barab bi mu sujjoote ndax day mel ne nit ki kanamam mook ko moo ko gën a jege ci lépp kanamam la gën a fonk ndax kanam day benn wër wërmbal boo xam ne li ci daje daa bari fi mu ne bu dara doon daanu nit ki boo moytu day jël ay loxoom dar ko ci kaw boppam sëgg maanaam nëbbu kanamam kanam googu nag mu fonk lool bu bëggul lu ci taq nga xam ne bu xëyee moom lay fomp moom lay sëlëm moom lay taxaw ci seetu bi léeg mu takk ci verre bu dee jigéen léeg mu puudar ko ah nga xam ne fonk na kanamam gi lool xar kanam moom dañ koo fonk ndax dañ koy gis daa bokk ci cër yi nga xam ne dañuy jàkkaarloo ak moom kon daa mat a fonk tey nag moom nga woon yàlla ne ko yow laa gën a fonk ndax yaa ma ko jox te yaa ma digal mu jege la nga ne ko rëpp ci suuf si suuf nga xam ne ci li gën a suufe la bokk ci yow nga jël li gën a kawe ci yow teg ko ci kon foofa jaam bi jege na boroomam yonent bi alayhi salaatu salaam ne na ngeen bari lu ngeen di ñaan kon bu ngeen sujjootee wax nañ ne sax daa wax ne dama leen a tere woon ngeen di jàng dara bu ngeen rukkooyee wala bu ngeen sujjootee waaye léegi bu ngeen rukkooyee na ngeen di màggal borom bi fa azimu fii rabb na ngeen di màggal yàlla bu ngeen sujjootee nag na ngeen farlu ci ñaan ndax foofa day palace boo xam ne dañ fay nangoo ñaan moo tax bëgg nañ lool nit ki bari lu muy ñaan ci ab sujjootam bari na lool ay ñaan yu ci ñëw nag ñaan yu baree baree baree bari ñëw na ci ñaan yu gudd guddit ñëw na ci waaye daal subhaanaka allahuma wa bihamdika allahuma ixfir li yóbbu na lépp léeg-léeg nag boo fi tollee nit na daa ndax mën na maa ñaan ci leneen lu dut arab nga xam ne kon kii danaan ndax mën na maa ñaan ci wolof kii ne la ndax mën naa koo ñaan ci séeréer kii ndax mën naa koo ñaan ci pulaar <laughs> waaye daal eh, li fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale Eh, borom bi jàngale ko ñu déggee ko ci wax ji nga xam ne daa waxoon ne tere woon naa leen ngeen di jàng dara bu ngeen rukkooxee wala bu ngeen sujjootee waaye léegi bu ngeen sujjootee na ngeen farlu ci ñaan bu fekkee jullig naafila la jullig naafila la nga xam na julli la danaa ci ñëw waaye dafa am julli goo xam ne julli jullig aajo la maanaam nit ko am soxla di di ko jullil di julli ngir ñaan yàlla mu faj soxlaam soosu kooku bu rukkooxee mën na koo ñaan ci nu ko mane su fekkee jullik farata la li gën te don li nga xam ne moom lañ xam ci ñi jiitu woon ak ñu mujj ñi mooy buru kooyee mu bàkk borom bi te ñaan ñaan gii nga xam ne rek moom la fa yonent bi jàngale woon subhaana rabbiyal aala am nañu cay teg allahuma ixfir lii ndax loolu daa ëmb lépp daa ëmb lépp daa ëmb lépp mooy yaa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala sutura te loolu yóbbaale na lépp teewul nag buñ demee ci xadis yi nga xam ne imaam muslim andi na ko mu bokk ci xadis yi nga xam ne sayidna aliyun karamallahu wajhahu moo ko jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu day wax allahuma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi xalaqahu fa sawwarahu fa axsana suwarahu fa shaqa sam'ahu wa basarahu wa fa tabarakallahu ahsanal xaaliqin nee na yonent bi alayhi daan na wax loolu ah, yàlla yow laay sujjootal yow laa gëm ci yow laa wommatuñ yàlla sujjootal naa la sama jëmm yow mi nga xam ne yaa bind ba noppi rafetal sa bind defal may nopp defal ma dégg defal ma gis gàcce ngaa laa maa yow kenn du yow Abdullah ibnu Abbas Abbas radiallahu anhuma nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci naafile yi bu masaana génn ci eh, bu masaana génn ci ak julli wala bu masaana nekk ci ab sujjuut daan na wax allahuma ij'al fii xalbi nuura wa fii sam'i nuura wa fii basari nuura wa an yamini nuura wa an yasaari nuura wa amaami nuura wa xalfi nuura waj'alni nuura nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ñaan lool bu sujjootee lool kon day layal ne sujjoot palaasu ñaan la bokk na ci sunna yi ak yi nga xam ne dañ koo sopp mooy euh, maanaam ki nga xam ne day sujjoot euh, mooy toog toogaay bi nga xam ne mooy toogaay bu njëkk bi toogaay bu njëkk bi ak jàng taaya ak baati taaya yi ngay jàng xam nga loolu boo fàttalikoo ca mm, farata ya waxoon naa la ne dañ caa wuute daa am ñu ko ca boole woon waaye am na ñu ko ca génne woon ñu ko génne woon ca farataya ya euh, ñu mel ne masabu imam malik ak yéni mel dañ koo boole fii ci sunna yi moo tax ñaar yooyu sunna lañ inda jumhuril fuqaha ci ñi ëpp ci borom xam-xam yi fiq yi muy toogaay bu njëkk bi ak taaye yooyu dañ ko boole ci sunna yi toogaay bële nag nga xam ne mooy toogaay bu mujj ba ànd ak taxaay ja muy toogaay yu sëlmal ba boobu am na beneen àtte boo xamante ne ñëw na ci moo tax toogaay booba nga xam ne mooy booba ma doon wax léegi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 ñaan mu nangul nu sunuy jaamu yëpp te jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ñoo ngi nuyu soppe Almisbah yëpp leen siyaare bu baax a baax di békki ni ngeen defe jotaay bi muy seen jotaayu daara jotaay boo xam ne dañ ciy fàttalante ñun ak yéen ñaan borom bi subxanahu wa taala mu defal ñu lépp mu doon ak jaamu waaye mu sellalal ñu ko ñaan ko itam mu nangul ñu te defal ñu sutura yàlla mën na ko yàlla nañu ko boole defal ñoo ngi nuyu soppe yëpp. mu mel ne démb bi ma yëkkati jotaay bi ñu ngi doon waxtaane lenn ci sunna ak ngëneel yi nga xam ne mooy ngëneeli julli ak sunna yi ndax ñaari baat yooyu léeg-léeg dañuy ànd waaye bu ma ci song rek léeg-léeg ma wuute gi nga xam ne moom la ci borom xam-xam wuute ma ñëwoon ba agsi ci sàbbaal yi nga xam ne moom la ñuy sàbbaal bi nga sujjootee ndax dama jiitaloon bi nga xamante ne yaa ngi rukkoo nga wax euh, allahu akbar jàpp ci say woom bi nga sëggee nga wax subhaana rabbiyal azim bu dee kuy julli moom dong wala koo xam ne day jiite aw nit buy siggi mu wax sami allahu liman xamida su fekkee kuy jiite aw nit la wala boog koo xamante ne dañ koy jiite moom mu wax rabbana wala kal xamdu bu ca toppee la ca topp mooy sujoot eh, sujoot mooy ki nga xam ne jël na ab jëxam teg ko ci suuf waxoon naa la e, sujjoot ak ndeysaan ni nga xamante ne noonu la e, nekke am njàngale mu baree bari ndax doomu aadama ak ni mu fonke boppam ak ni mu fonke kanamam bu ko jëlee sujjootal ko boroomam subhaanahu wa taala ci suuf bu boobaa la muy wax mooy e, subhaana rabbiyal aala ndax sàbbaal yooyu dañ koo sopp mu bokk ci sunna yi am ñu ko lime noonu ndax uqbatu bnu amir radiallahu anhu moo ne bi aaya ji wàccee sabbi isma rabbikal aala yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane ijaaluha fi sujoodikum def leen ko ci seeni sujood xam nga waxoon naa la démb ne fa sabbih bismi rabbikal azim ba mu ñëwee yonent bi dane def leen ko ci seeni rukkoo muy subhaana rabbiyal azim suñuy sujood nag subhaana rabbiyal aala sujjootit dafa ànd ak li nga xam ne mooy ñaan dafa ànd ak li nga xam ne mooy ñaan ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fi borom bi subhaanahu wa taala fi jaam bi di gën a jegee boromam aqrabu ma yakunu ahadukum min rabbihi wa huwa saajidun kon fa akfiru fiihi min addu'a fi jaam bi di gën a jegee boromam subhaanahu wa taala mooy bi mu sujjootee kon na ngeen di baril lu ngeen di ñaan na ngeen di baril lu ngeen di ñaan seen borom jamono ji nga xamante ne da ngeen a sujjoot ndax doomu aadama day koo xam ne dafa fonk boppam lool waaye màggaay bi muy màgg ak yëkkatiku gi muy yëkkatiku boo xoolee lim gën a fonk ci jëmmam ji mooy xar kanamam bi ndax xar kanam euh, mën ngaa wax ne ku tumbal boobu li ci daje dafa bari lool tey bu dara doon daanu wala nit ki tiit boo moytuwul day jël ay loxoom dar ci boppam sëgg maanaam nëbbu kanamam kanam googu mu fonk lool nga xam ne boo xëyee moom ngay taxaw ci kanam seetu bi moom ngay fomp bu dee jigéen moom lay puudar moom la ñuy e, diwa ka toppatoo ndax lan dañuy jàkkaarloo ak moom moom dañuy jàkkaarloo ak moom ci la ñuy xamee li ëpp ci yow yow yaay kan ci xàmmee ko ci xar kanamam nga xam ne mooy nit ki kon moom ci boppam ci lay feeñ li ci gën a feeñ te gën cee fees te gën ko koo xàmmee mooy ab xar kanamam xar boobu nag moom lay jël wàccee ko ci li gën suufee ci moom muy suuf nga xam ne daa suufe jonjoo ko suufe lool ci moom doomu aadama bëgg di yëkkatiku fu mu toll tey mu jël li gën a yëkkatiku ci moom nga xam ne yàlla bi mu bindee cëri doomu aadama xar kanama ca féete kaw maanaam bopp ak la la àndal ñoo féete kaw tey moom la jàmm bi di jël rëppal ko boromam subxanahu wa taala ci suuf rëppal ko boromam ci suuf moo tax borom bi subxanahu wa taala kontaan moo tax sujjóot boobu. nga xam ne moom la jaam bi di sujjoot nga xam ne juróom ñaari cëra koy def kenn du ko defal ku dul yàlla yàlla rek lañ koy defal subhaanahu wa taala moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne daa wax ne tere woon naa leen ngeen di jàng dara bu ngeen rukkooyee ak bu ngeen sujjootee waaye léegi nag fa amma rukoohu fa azimu fiihi rabbu bu ngeen rukkooyee na ngeen di màggal borom bi subhaanahu wa taala ngeen koy màggal di wax rëyaayu borom bi waaw di wax kattanam gi fa azimu mooy subhaana rabbi al azim bu ngeen sujjootee nag fajtahidu fi du'a na ngeen di farlu ci ñaan ndax e, barab boobu barabu nangu ñaan la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari woon na lool muy ñaan ci bu sujjootee moo tax ñaan yu baree bare rot na ci yu wuute ndax boo gisee ñaan yi di ñu gis ne laaj nañ ko ko mu wax ne lii laa ñaan fii beneen yoon ñu laaj ko mu ne lii laa wax li muy tegtale mooy nit ki moom buy ñaan la gën ca la muy ñaan kenn ku nekk ak soxlay boppam kenn ku nekk ak soxlay boppam ni nga xamante ne bëgg-bëgg yi noonu la wuutee ni nga xam ne noonu la tolluwaayu nit ñu wuutee noonu la soxla yi wuutee am na koo xamante ne lii sax lii soxlaam li muy rëy rëy ci moom du soxlas kee kee moom soxlawu ko am koo xam ne kii moom li muy ñàkk ñàkk soxla lii kii moom soxla na ko ndax tolluwaay yi ñoo wuute léeg am ñaan goo xam ne ci diine day mel ne day yóbbaale yëpp day yóbbaale yëpp ndax yaatuwaay bi ak déggin wi waaye jëmmi ñaan gi moom mi ngi aju rek ci nit ki tolluwaay bi mu am am na koo xam ne fi mu ne sëyam bi amuk dal moo ko gënal lu mën a am sëyam bi amuk dal ndax fan yi mi ngi ci ay jafe-jafe mi ngi ci ak ñàkk a ak borom këram bu ne guy ga mu ne daqaar ga am na koo xamante ne li ko tee nelaw mooy njàngum doomam yi moom soxlaam fi mu ne moom du mbirum sëy bi loolu moom jëlale na ko yal na yàlla yokk ci ak dal waaye soxlaam mooy njàngum xale yi waaw am na koo xamante ne ñaanam mooy liggéeyam bi waaw sama liggéey bi wala liggéeyukaay ba wala jafe-jafe ya fa nekk am na koo xam ne sax ñaanam mooy digganteem ak ci dëkkandoom am na koo xam ne ñaanam mooy njaayam mi dox waaw <laughs> am na koo xam ne ñaanam mooy otom bi yàqu defaru waaw am na koo xam ne boppam bi ubu di xalaat la bëgg mu dañ am na koo xam ne feebaram bee tax muy ñaan Ah, am na koo xamante ne nii waa ji ko taxawu mu rek la bëgg mu tax tàqalikoog moom wala soxna si ko taxawu mu la bëgg a tàqalikoog moom ala kulli xaal damaa bëgg a wax ne kenn ku ne ak yëg-yëgu ñaanam fi mu ne li may lim li muy bari bari am na koo xam ne ak siwuma ci bosam ak siwuma ci li ko tee nelaw <laughs> ah, nga xamante ne mooy soxlaam moo tax mu am jullik jullik ñaan aajo nga xamante ne nit ki dana dem jàpp julli ñaari rakk ci waxtu wu dagana naafi la waxtu woowu nag bu ko neexee bu demee ci sujjoot ba bu sujjootee bu la neexee dafa une heure de temps ci sujjoot ba waaw ñaanal lépp loo bëgg a ñaan moo xam da nga koy wax ci làkku arab moo xam da koy wax ci làkk wi nga nàmp waaw bu ma ne làkk wi nga nàmp mu yóbbaale yëpp bu dee séeréer noonu bu dee pël noonu bu dee tukkuloor noonu defe naa ñaar yooyu ñoo ànd <laughs> maa ngi leen di nuyu waaw bu dee bu dee bu dee bu dee français noonu ala kulli xaal borom bi subxanahu wa taala moom dégg na làkk yëpp bu dee nag ki jullik farata la. moom bëggewuñ ko fa noonu moo tax foofa ñaan nga fa yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon rek subhaanaka allahuma wa bihamdika allahuma ixfir lii yóbbaale na lépp euh, imaam muslim nettali na ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci sayyidina aliyun karamallahu wajhahu mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam isaa sajada yaqulu bu masaana sujjoot day wax naan allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi xalaqahu fa sawwarahu fa axsana suwarahu fa shaqa sam'ahu wa basarahu fa tabaraka allahu axsana alxaaliqin waaw nee nañ alayhi salaatu wasalaam daan na jàng ñaan googu bu sujjootee bu sujjootee jamono yañ daan gën a féex ca suñu jigéen ñu baax ñele ca daara almisbaax kër soxna Aminta Diop daan nañ dikk ak ñoom ci ñaan yu mel nii maa ngi leen di nuyu baax a baax tey nuyu oustaz Salihu Ngom mi nga xam ne moo ñu fa wuutu am na it beneen riwaaya boo xam ne dañuy wax ne yonent bi bu masaana sujjoot day wax allahuma ij'al fi qalbi nuura wa fi sam'i nuura wa fi basari nuura wa an yamini nuura wa an yasaari nuura wa amaami nuura wa xalfi nuura waj'alni nuura loolu it wax nañ ne yonent bi alayhi salaam daan daanako wax bu sujjootee waaye li ma bëgg a wax rek mooy sàbbaal gi ñuy sàbbaal borom bi subxanahu wa taala buñ sujjootee bokk na ci yi nga xam ne boroom xam-xam yi lim nañ ko ci sunnay julli yi ñenn ñi lim ko ci yi nga xam ne dañ koo sopp mu bokkaat ci beneen na muy toogaay bu njëkk bi ak taaye ju njëkk ji maanaam toogaay bi ak baat ya nga fay wax ñaar yooyu sunna lañ ko limee ci ñu ëpp ci fuqaha yi. Eh, beneen sunna bi ci topp di toogaayu ñaareel bi ak jàng taaye ji yooyu am nañu ko lim muy sunna waaye wuute am na ci imaam Shafii boolewu ko ca waxoon naa la ko ca ba may wax farata yi imaam Ahmad it boolewuñ ko ca ñoom dañoo def toogaay boobee di toogaay bu mujj ba eh, boole ko ci farata yi boole ca itam baati taaye yi boole ca itam baati taaye nga xam ne boo ñëwee ci imaam Malik ak imaam Abu Hanifa ak ñu bari ci fuqahaa yi ñoom dañoo wax ne toogaayu sëlmal bi ak sëlmal gi mooy farata waaye taayee jeeg baat yaak toogaay ba moom du farata imaam Shafii ak imaam Ahmad ñoom boole ko ca farata ya ala kulli xaal loolu wuute yi la defe naa ñëwoon naa ci ci lu yaatu bala maa gën jënd foofu damay ñëw ci melokaanu toog ci julli maanaam nan la ñuy toogee ci julli ndax léeg gis koo xam ne day sap day capp ay tànkam am na ñoo xam ne man mënu ba léegi xamaguñ ni ñu war a toogee li may wax nag mooy koo xam ne mën na ko koo xam ne ay ay cëram mën na ko mën na ko ku amul ngaan toogaay woowu moo gën a moo gën mooy toogaay bi nga xam ne dañ koo jagleel euh, julli dañ koo jagleel ki nga xam ne day julli nga xam ne bu toogee noonu la war a toogee nga xam ne doo jël say tànk samp ñaari baaraam yu mag yi toog ci ne copp doo jël sa ñaari tànk ràbbale ko ci ginnaaw doo jël sa ñaari tànk ràbbale ko ci ginnaaw day mel ne day teg eh, tànku tànkum day jooram day mel ne da koy teg waaye day mel ne eh, ni ma bëgg waxee xam naa bu doon image la ci laa koy gën a mën a mën a melale waaye day mel ne tànkum day jooram da koy da xaw da koy lem tëral ko eh, tànkub càmmooñam mu mel ne mooy samp baaraam yi mu toog ci kawam mu toog ci kawam waaw ala kulli xaal toogaayu julli maa ngi joxoñ ne kon dañ koy jàng waaye du toogaay booy samp say baaraam toog ci kaw du toogaay boo xam ne da ngay mel ne ku ferankulaayu déedéet waaye da ngay teg sa tànkub càmmooñ euh, ci kaw sa pooju càmmooñ maanaam sax ci kaw sa pooju ndeyjoor ci façon toogaay yu mel noonu lay doon ala kulli xaal ku def ay recherche tuuti sax dana dana gis misaarum toogaay yi may wax ba bañ am jumtukaayu image yoo xamante ne danañ ko mën a wone waaye ci waxtaanu rajo lañ nekk. Euh, moo tax boo ñëwee ci julli da ngay gis ne toogaay bi du toogaay boo xam ne nu la neex tooge comme ni ma ko waxee léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko jàngalee noonu la ko jàngalee toogaay boobu nag ci teggini la bokk moo tax Zubair radiallahu anhuma euh, wala boog Ibnu Zubair muy Abdullah Ibnu Zubair ndeysaan ndeysaan mu baax ma Abdullah Ibnu Zubair mi nga xamante ne euh, baayam daa bokk ci ñi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yaayam di asma di doomi sayidina abubakar siddiq radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam isaa qaada fi salaati jaala xadamahu yusra taxta faqafahu wa taaqahu wa farasa xadamahu lyumna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu masaana toog ci julli day mel ne day jël euh, ndëggul tànku ndey jooram ndëggu tànku ndëggul tànku càmmooñam day mel ne moom lay jël nga xam ne moom lay samp waaye jël li nga xam ne mooy tànkub ndeyjooram mu mel ne moom lay las nga xam ne ci kawam lay toog ci kawam lay toog loolu mooy toogaay bi nga xam ne mooy toogaayu julli yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy mën a julli loolu ci teggini toogaay bi la bokk ki nga xam ne dafa toogee noonu it dafa am léeg-léeg lu fay xew bu fekkee day taaya mooy baaraamam bi mu teg ci kaw ay loxoom nan la koy tegee mooy sa loxo càmmoñ da nga koy jël teg ko ci sa kaw wóom ni nga toogee da ngay mel ni da nga koo teg ci sa kaw bëtu woom mel ne koo ci ngëpp wala nga tàllal baaraam yi ci kawam noonu teg ko ba mu tegu e, sa loxom nday joor nga teg ko ci sa kaw poojum nday joor waaye nga lem baaraam yi nga lem ñetti baaraam yi ak baaraam bu mag bi ba mu def baaraamu e, sànnikaay bi moom la ñuy wax baaraamu taaya as sababa bu ko defee na nga di ko yëngal nga di ko yëngal yëngal googu am na àtte yu ci borom xam-xam yi am dañ cee wuute ci yëngal gi am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo sib ñu ko yëngal am ñoo xam ne dañ koo sopp am ñoo xam ne dañ ne ñaari yëpp a baax am ñoo xam ne dañ ne ñaari yëpp a baax indi ca nag euh, seen ay wuuteeg seen ay werante ak seenum njàngale ala kulli xaal yi may wax nii bokku ci julli gi waaye daa bokk ci teggin yi daa bokk ci teggin yi nga xam ne kuy julli euh, war naa sàmmonte ak moom wax nañ ne ki nga xam ne da koy yëngal dafa mel ne mi ngi koy dóor ci bopp seytaane maanaam moo gën a metti ci bopp seytaane yatu weñ yat woo xam ne dafa diis gann aki weñ ñu jël ko di ko di ko kocc koccal ci kaw boppam bi moo ko gën a metti daa mel ne ñi ngi xaabaabal sax ci waxtu wi ñu taxaw foofu bu ñu yàlla mayee ñu dund ba subaak jàmm daa ñu ci dellu si ñu jaajëfal leen bu baax jaajafal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall moom la ñuy bàyyee toogu bi mu ànd ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin kama la nihaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa taala wa